Euh, les parents yoo xam ni actuellement écoles yi constaté nañu ak nawet gu ñu jógee ni euh, la plupart des écoles ndox mi da leen jël am école yoo xam ni am ñu toilette am école yoo xam ni am ñu miir donc loolu yëpp war na mën a bokk ci préparation yoo xam ni moom la ñu war a jàppale suñu jeunes frères yi pour ñu mën a nekk ci concept ubbi tey jàng tey donc pour loolu ñun suñu contribution lenn la mooy inciter euh, suñu xarit yi des amicales yoo xam ne nekkuñu di jàng te à l'heure actuelle ñu ngi seen localité l'état ne peut pas tout faire l'état ne peut pas être partout l'état c'est qui ñun la ñoom la et suñu jeune frère donc ñun ñun ñu leen féetee kaw tey avec nos amicales nos AIC vraiment suñu contribution ci loolu la mën a nekk te loolu la ñuy soñ amicales yoo xam ni mën nañu mobiliser wu dem jàppale xale yi ci loolu boo bu ñu tardé jàng bi donc ñi soñu aussi les maires de ces localités vraiment ñu mën a ñëw soutenir amical yooyu noonu par lan soit mën nañu jënd ay sachet ndox mën nañu leen jox ay râteau mën nañu leen jox ay pelle ci loolu lañu ñu mën a contribuer. donc deuxième point bi mooy immigration bi immigration bi xam nañu ni actuellement ni dafa naa takarnaase donc boo xoolee ñu naan Sénégal fu mu toll nii un pays partout chanté que ñu ngi ci émergence émergence moom buy feeñ warul mën a feeñ. Euh, ci jeunes yi di quitter fii Sénégal di dem lu ñu war a mën a gis mooy contraire bi ñeneen di jógee feneen di wàlliyaan si Sénégal ñu ne la pendant des qui comment que deux semaines ou trois semaines ñi gis des milliers de jeunes quitter le Sénégal ñu ne dans toute la sous-région Sénégal les jeunes yi di gën a quitter seen dëkk di dem wàlliyaan à l'extérieur kooku c'est une honte et vraiment Euh, suñu autorité war nañu mën a seetu ci loolu ñu indi yeneen proposition yu ute proposition yoo xam ne vraiment moo fi nekk parce que proposition yu fi nekk bu joxoon espoir jeunes yi du ñu dem te loolu doon na loo xam ne ñun regroupement des diplômés sans emploi ñu ngi ci interpellé ñëpp ñoo xam ni taxaw nañu fi tey bëgg a réew mi te d'ici quatre mois war nañu dem élection toutes les candidatures yoo xam ni tey ñoom ñoo fi nekk déposé par exemple seen candidature yi les candidats là ñu ngi leen di woo vraiment ñi ñëw toog ak ñun ñu wax ñu lan mooy seen programme pour l'emploi des jeunes ban espoir la ñu war a mën a jox jeunes yoo xam ne ñoom ñoo fi nekk demooguñu boo franchement ñu naan ah war naa mën a toog war naa mën a yaakaar ci lii kii bu ñëwee lii ak lii ak lii programme yooyu soxla nañ ko ci ñoom xam ban rang la ñu jox euh, la question de l'emploi ci seen programme bi parce que loolu aussi yaakaar naa ni jeune bu xamee ni par exemple programme de l'emploi tel candidat mu ngi ko jox tel rang premier rang ou deuxième rang ainsi de suite war nañu ko war na mën a am espoir ne non garaawul mën naa toog duma kii donc manque espoir boobu yëpp bu fi nekk moom moo tax jeunes yi di dem. troisième point bi mooy octroi des financements mu di loo xam ni franchement ñun regroupement des diplômés sans emploi gis nañu loolu noonu joxuñu ko ñu ko war a yelloo. ay sélection militant la ñuy def ay sélection des gens qui ne méritent pas à être financés bu ñu ko waxante rek parce que am na des jeunes du regroupement des diplômés sans emploi yu nga xam ne déposé nañu seen projet depuis des années deux mille dix neuf deux mille kii comment ko vingt ba heure toll nii ba léegi war ba léegi mënuñu jot seen financement te dañu ne délégation à l'entrepreneuriat rapide donc une délégation à l'entrepreneuriat rapide un jeune mu ñëw déposer projet projet am toog cinq ans kooku nekkatul une délégation à l'entrepreneuriat rapide mën nañu ko wooyee leneen mais pas entrepreneuriat rapide te ñu ngi ci fin mandat presque dans quatre mois kooku jeune bu toogee ay trois ans quatre ans jotoogul financement am wooguñu ko wax ñu ko fu mu toll franchement quatre mois yu ci des mën na nemee sa waay man toog naa fii pendant cinq ans pendant trois ans déposé sama projet kiwul donc lan moo fi des mooy les quatre cent mille ou les cent mille yu ma yor ko mun ma ko fi liggéey boo mën ma jural leneen avec les conditions yoo xam ni dafa difficile pour entreprendre entreprendre fii Sénégal loolu ngay jël nga naan damay uti gaal wala ainsi de suite donc tout c'est comment que tout s'explique lépp a dugalante donc financement yooyu noonu ñun ngi ñu ngi ciy woo état bu ñu xool affaire de partisan ku yelloo ku nekk ci entrepreneuriat wala bëgg a nekk ci champ entrepreneuriat bu déposer projet am nu mu gën a gaawee nañu étudier projet am wax ko ko bu fekkee dafa am lu mu ci manqué mu ñëw ñu corriger ko ko ñu encadrer ko ko ñu jox ko financement boo pare ñu xool nan la ñuy def ba mën ko suivre ci projet boo xam ne vraiment moom la déposer.